ah euh, kontaan bu bu sax. Mhm. bu rëy kontaan naa vraiment. Mhm. ñu gis bi nga jógee salon da nga tur xewul yu baree baree bari lu ko waral. waaw dama kontaan tamit. Mhm. xam nga ku ne lii ngay ñaan. toog ba yàlla may la jëkkër. donc may sant yàlla bu baax. ma ñëw fekk samay mbokk. fekk samay xarit. samay yaay. ñëpp toog. loolu moo waral moom tur xewul. Mhm. loolu tax nga tur xewal ñu gis ne tamit xew bi autorité bu nekk wuy si na la gis nañu ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall ñëw na fi léegi ba ziar la ba daal di dem nan nga dundee loolu. waaw kontaan kontaan torop ndax moom moom sama xaritu yaay la. waaw sama xaritu yaay la ba pare sama yaay tamit daf ma ko bàyyi bàyyile. donc mu ñëw li mu def nii rëy na ci man torop. aw ma fayam yal na ko yàlla fay. te message ngay jox monsieur Samb nag ndax fi mu ne nii nag moom moo aak moom moome. <laughs> monsieur Samb. xanaa ko ba àjjana incha allah. bu loolu weesoo loo koy wax mu lay xool de love you mon amour. <laughs> Ah, tey ah, di sa bis di bisu mbégte yow ku la xam xam la ci milieu mannequinat ah, ku la xam xam la ci wàllum défilé ku la xam xam la ci kookee di faramaareen bu mag bi di Wally Ballago Seck tey nga liggéey sa liggéey kenn mosula dégg ci benn détail ba tey nga gi dégg borom nga xam ne nag ñu ngi ci jeunesse bu bees bi nga xam ne bëgg nañu dugg ci milieu boobee loo leen di conseil waaw sant yàlla rek parce que xam nga min euh, milieu mannequinat dafa nekk millier bu sensible donc boo ci amul fulla rek Euh, mun nga ci daraaya tu vois donc man dama ko gëmoon am ci fulla ba pare doon doon xalaat du bëri mhm. xalaat ne dama am famille xalaat ne dama am ay sœur xalaat ne am na ñu ma bëgg am ñu ma bañ comprendre nga mhm. donc man munu man pour man pour man waruma def dara lu bon mhm. waruma def dara lu ñaaw ndax sama entourage sama fami ak ñi ma bëgg waaw loolu rek jar na yàlla waaw parce tamit boo nekkee ci milieu boo xam ne lu nekk la leen di wax nga nekk ci défilé dix ans macha allah ba génn mosoo gis benn réseaux sociaux bind la dara lu ñaaw kon damay santaat yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin dañu gis tamit benn poids soutien boo xam ne sa yaay sa waajur bu jigéen taxaw def na ko ci yow mhm. maanaam tout le temps rek mu ngi sa wet di la épaulé nee na boo naroon a jàdd sax wala nga nar a dem voyage sax moom moo lay daal ngay wax sa yaay booy waaw moom dafa bëgg doom moom dafa bëgg doom dafa xër si doom ba pare sama xarit la loolu moom dafa toll foo xam ne sax dafa ne loolu loo góor naa la jox sax pour nga def loo xam ne waroo ko def sama soo ñëw man sa yaa ma jox kon kooku xam nga ne yaay ju baax la yaay ju bëgg yaay ju yaay joo xam ne bëggul doomam def lu bon mm-hmm. waaw kon boog damay sant rek waaw damay sant yàlla bu baax d' accord euh, ban message ngay joxe ah, parce que tamit quoi qu'on puisse dire euh, wax nga ko démb wax waxat du bari wax sa frère di sa xarit di waale Ballago Seck bés bi bu sañoon ah, daal di ko teewee fekk ko fii ah, da ko fekk bitim réew lan ngay wax ci moom. waaw moom moom am na lu ko metti nee na xolam bee ngi métti. Mm-hmm. nee na ñu lay takk nekkuma dakaar sama xol bi métti na lool noo mais nee na su ñëwee day xewaat incha allah. kooku sama frère la sama xarit la. Mm-hmm. non sama tur fu mu yegg moom moo ko fa yeggalaa. la si parce que du défilé bi. Mm-hmm. donc moom moo ma woy ba may woy est ce que am naa 18 ans xam nga mu bëgg ma torop man tamit ma bëgg ko mu nekk sama xarit nekk sama mbokk nekk sama lépp sagal ma fu ne ci àddina lu ne la fi yónnee yónnee délégation ñëpp ñëw yónnee ma xaalis bu bëri lépp waaw macha allah daal yàlla na ko yàlla fay yàlla gën ko at ci kaw the king <laughs> duñ la téye lu dañ lay daal di bàyyi rek na xam naa ne fi mu ne ne ngi toog di la xaar. maa ngi sant tamit sama sama xarit yi ak sama sœur yi sama mbok sama ñëpp di sant tamit sama copine boo xam ne nii moo ngi euh, moo ngi Bordeaux Ndeye mooy sama copine d'enfance mais benn benn xarit laa am donc waaw donc moom. moo kii ñoo bokk ndey ak booy. sama mooy sama lépp. Mm-hmm. bul jooy tey sa bis la bànneex la bisu bànneex la. Mm-hmm. donc bul jooy ñëwul waaye tamit xel bi mu ngi foofu. waaw maa ngi sant mooy woote. allo. bul jooy mm-hmm. amiin waay. bébé oui. oui mon amour monsieur Sambou. dégg loolu. <laughs> amiin amiin bébé amiin amiin amiin amiin monsieur Samb waaw de am na kontaan naa yal na la yàlla fay ci barke Serigne Saliou ñu bokk incha allah. loofu yu gën a jub. kaw ca kaw. <laughs> dafa am dafa am xanaa ay kii. Ah, mooy na ne yaa wax ci moom. sant tamit sama bé sama sama grande sama mag sama xarit Aïssatou Mbaye depuis Suisse kooku aw ma fayam yàlla na ko yàlla fay li ma li ma li ma sol ni moom moo ko jënd indi na fi lu nekk yàlla na ko yàlla fay sama mag ji moom tamit mënu wax si moom yàlla na ko moo ci ñaw bi rob bi nice na trop Euh, Khadim Kassé. d'accord moom a ñëwal. moom moo couplé. Mhm. les étoffes euh, jabaru Elimane Lam Sala. ma moo moom moo jaay tissu bi donc Astou Mbaye moo ko jënd man dama dem pour jënd tissu rek. Mhm. da mu ne ma Astou defal na la cadeau donc jënd ma tissu un million foofu. yàlla na yàlla dafay sama mag ji. Mhm. Astou love you grand sœur. bés bi tax cafoo ko <laughs> noonu la koy waxee bi cafu de indi na fi lu nekk nag lu ne indil na ma parure indi fi xaalis bu bëri asu mbay vraiment sama mag bi yal na la yàlla fay mhm. ama sa fay xola madoo ngi nii mhm. ñoom madoo ñoo indi woon démb ñoom bijou mhm. rama Thiès ñoo doon defalandoo ñee Thiès sama collègue la rama ñoo doon defalandoo ak bijou ji ñoo doon defalandoo ñoom ñëpp même asu ño doon defalandoo donc moom ba ma ko naan yow yaay sama mag loolu loolu tamit yàgg na moom tamit mu jàpp ko mu ma jour ba ñu ñuy waxtaan ci si saa si moom laa njëkk woo mm-hmm. mais dafa yuuxu dafa doon nelaw mais dafa yuuxu mm-hmm. tellement que dafa kontaan parce que dafa ma ko yàgg yéene su ma koy rek mu ne ma wànna bu xanaa moo tax jour boobu moom mm-hmm. beneen affaire lañ def si moom ba ma euh, bi ñëpp ma ko yéene ñëpp ma ko yéene ku ma ku woo nee dañ may taq da ngay yuuxu affaire bu grave boo xam ne mënu ma la ko expliquer nag mais dafa jotoon nag dafa yàggoon <laughs> waaw jot yomb ana lu jot yomb a tey sa waajur bu góor buggoon nga mu fekkee ko loolu malheureusement teewawul bis bi démb gis nañu li nga yegg waaye ba tey dafa mel ni boo tuuree xewal rek sa xel yëpp day dem ci moom. waaw sama papa sama xarit la moom sama lépp la ndeysaan ndax maa bëggoon torop torop vraiment ba mu gaañu léegi amagul sax même pas huit mois ah. donc mais mun naa ne ñaanam tamit. bokk na si lu ma gën a may jëkkër. parce que ñaan waajur am na solo trop si doom te daf ma doon ñaanal te li mu ñaan nii dafa dëdd rek lii mu am mhm. kon boog moo ngi noonu ñu gën a fonk waajur yi am na solo. Mhm. merci beaucoup gan yaa ngi ñëw Nabou te bi yaa ngi ko teg. waa gis léegi xam dem changé ñëwaat. def sax waa jeex taay ca Samb. <laughs> duggal tegul def. macha allah macha allah. awa ñaata la compter laajal madame Ba. awa compter da ngay commencer but bi ba but bi conteneur bu ñëwaat moo koy rang. wallaay yow sama rakk la dafa yàgg dëkk bi. tey waaye moo jàppal yaay gi nee na yow lii sa yaay am na jëkkër tey lii. wallaay wallaay wallaay wallaay. trop macha allah. rafet na de seen rafet na.

Fatima may leen ñu jël ay PC ba pare. booy su la neexee nga dem toog ne sax loo neexee nga dem toog bu daaw. may leen jël ay PC ba pare. ay doomam ah? am seen fil baa ngi nii fil baa ngi taxaw na noonu jaarale si nabu nabu xaaral ñu jël peese ba pare d'accord xaaral ñu jël peese am sa fil bi yow Nabou Diagne sama njëriñ bi dem nag bi ma sàmm ak xale yi. mais xaar tuuti xaar tuuti. macha allah macha allah. jëwrin. waaw bu fi kenn dugg kenn ñëw. def naa ko. laaw la cat laaw la ma xel laaw la ma laaw la ma ñaar ba la fekkee laaw la la jëkk Thank you.